asalaamaaleykum cher am internet ñu leen di bëggee di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di profité di leen baalu ak ci korité bi ñu jógee démb baal na ñëpp ak nañu yàlla boole baal yàlla nangul ñu suñu koor may am mbégte nag ak contentement bu baax a baax ñoo seet si benn koo xamante ne nit ku baax la l'homme social lañ koy wax l'homme qui n'a jamais dit non ñu naan ko Ibrahima jóo dëkk fii ci Kër Massar waaye dama cee ànd ak ki nga xamante ne mooy ko sama njool mi nga xamante ne bàyyi ma benn yoon

gis nañ ne dangay joxe ay denrées alimentaire gis nañ ne yaa ngi dimbale ay yi yaa ngi jàppale jigéen ñi comme ni ñu koy waxee te sooy def ci te yàlla tax nit ñi ñoo la ñëwal seen bopp Ibrahima ana ban yëg-yëg ngay am ci di def ci doomi aadama yi. nañu am tawasi pour di ci wax te dañu am kontaan pour di ci wax ndax lu tax ñu di wax mooy bu la yàlla dimbalee bu juddi xam yooyu jur mooy tey bi judd fekk say wéybu say mag dox ci ay jéego pour jàppale doomu aadama ñu naa ko tàll ci loolu yàlla ci loolu àll ci loolu tey lu mën a xew ak loo mën a am lu mën ci kaw ak mën a li ma jox rek dafa gane si sa loxo su loo xam ne dafa ñëw pour éternellement mais wi ñëw nag dañuy ñaan ne doo doo mën a wàll te kooku ndox bu la ko yàlla joxee kon la jox pour nga naan mais bu ñu demee si wàll bi ñu séddalee ba sa yàlla ndax yow yow nag nit ki bi la yàlla yi jox li ci am mooy di nga lekk mu rees ak nit bu sol waaye li jàmm gis des autres jaamu yàlla yow moom vraiment loolu leer na li mu ci am mooy li ngay jox jaamu yàlla yi ba tey ñu ñëwaat gis nañu ci koor gi lañ jógee koor gi lañ jógee ci loolu nga rey ay nag joxe joxe ay ndugg joxe ay xaalis joxe lépp te joxe ci xol la sax Ibrahima ñu gis ne modestie bi nga toogee nii c'est pas évident parce que boo doon dem tey ci ñenn ñoo xamante ne tey yàlla dara jaal na leen wala yàlla joxe leen benn kàttan bi dañ fa fekk gardien dañ fa fekk ay protocole ay yeneen a yeneen lan moo tax Ibrahima defoo ñoo di woo lool. waaw kay li di ki da am loolu da nga bàyyi xel saa su ne mhm. yow li ngay doon lu ginnaaw bu dafay am ci loo xamante ni defaloo suñu borom lu tax def la te suñu borom bu may dindi ci yow doo def lu tax suñu borom dindi ko ginnaaw loolu ay la yëwal doomu aadama yi tam foo àgg ñoom ñooy tax nga di fa àgg kon doomu aadama yi di tax ngay àgg fi ngay àgg da leen di jox ñoom lu ñu moom ci yow ndax tey yaakaar naa ni bu ñu fi tegee gardien wala ñu def fi protocole walaa koy mootu bu ñëw sox bu soxla woon sama bopp <laughs> yaakaar naa ne mënu mënu tee protocole bi protocole boobu tee malaaka lu mot kon tey jii boo xamee loolu am na yoo xamante ni ñëwul ci doomu aadama ndax diggante bi dafa gàtt tey loo xam ne diggante bu gàtt la tey boo fi jugee woon yàlla na yéex su fi jugee woon tey tey ñi nga doon bañ ñuy dugg sa kër wala ñi nga doon utal ay gardien pour bu ñu soxlaa nii wala ay protocole ñooñu ñooy ñëw ëllëg taxaw la génneel sa biir kër yóbbu la defar la kon tey àdduna nit mënu jaay lenn doomu aadama kon li am solo mooy chaque jour doomu aadama jàppale doomu aadama gënoo kenn kenn gënu kenn parce que gën yàlla rek moo xam kenn gën ñu sala kon boo seqee doomu aadama yi nga nekk ak ñoom li lay war mooy suutal sa bopp oyofal sa bopp mm-hmm. bu mën ak daal mm-hmm. ñu gis Ibrahima bi nga am Kër Massar macha allah am nga ko Pikine parce que lu baax soo def sa tur wër àdduna Ibrahima ba may ñëwaat sa ci politique ci sa mais ana ban ana ban yëg-yëg nga am ba tax nga war a mën a tey soobu ci politique bi te xam ne politique bi am nga ci place aussi. bon yëg-yëg bi ñu am mooy dañu juddoo ci banlieue mm-hmm. Pikine la ñu juddoo mm-hmm. yaroo fa màggee fa mm-hmm. yàlla dimbali ñu mën a propose bu ñu dugal suñu njaboot ñu am suñu njaboot juddoo Kër Massar kon tey Kër Massar lañ ko parce que samay doom fi ñëwee Kër Masar laa leen déclaré ba takkee fi soxna tamit kon tey mën naa ni doomu Kër Masar laa kon tey boo gisee li xew ci banlieue bi diggante Pikine ak euh, Kër Masar mm-hmm. ci jeunesse bi mm-hmm. ak gars yi li leen seetaanee te pourtant ku ci sàkk baatu askan bi ci ñaari gox yooyu ngay gën a pour nga mën am baatu askan bi ndax ñoom buñ la voteelu rek yaakaar naa ni li nga bëgg doo ko am buñ la voteelee nag ñu mm. nga bëgg di ko kon ay la yëwan loolu su amee mm. ñooñu dañ leen war a delloowaat seen gëdd delloowaat leen seen àq ak seen yelleef mm-hmm. mais gëdd bi ñu leen war a jox ak seen àq ak seen yelleef kenn joxu leen mm-hmm. li ma à chaque fois en tant que président Macky Sall moom amul problème mais problème am mooy njiit yi mu teg fii ñooñu ñooy problème am. Mhm. zone bi banlieue muy Pikine muy Guédiawaye amul leader li sax li am liñ ko war a wax dëgg dëgg duñ ko ko wax. parce buñ toogee moom dañ koy gëmloo ni moom moom banlieue bi te moomul banlieue bi. Mhm. dañ koy gëmloo ni jeunesse bi yow la ñu àndal te jeunesse bi ànduñoo ak moom. loolu moom la am boo nekkee moom da koy wax dëgg te yàlla tax. su lay jàpp mu jàpp la ci dëgg bu lay bàyyi ci dëgg nga ci dëgg lañ la bàyyi mm-hmm. loolu laa mais bëgg nit ki moom mu jaral la nga wax lu ak lu dul am mm-hmm. loolu dañ ko war a éviter tey li gën a indil problème président loolu bokk na ci mm-hmm. ndax tey jii boo xoolee jeunesse bi yi ñuy jànkonteel bëri na tey li ma li ma ci mën a wax tuuti rek bu ñuy taal ay polo ñu ne lañ leen dem jëli doomu banlieue bi suñuy toj ay bus ñu ne lañ leen dem jëli doomu banlieue bi suñu wut ay nerf yi dañu leen jëli doomu baal yi léegi ñooñu di génne doomu baal yi est que ñooñu tey jii seen i doom ñoo gën suñu doom est-ce que seen i yaay moo gën suñuy yaay est-ce que seen gën suñuy baay amul lenn luñ ñu gën amul lenn luñ ñu ëppalee léegi nag loolu désormais day jeex ci banlieue bi benn doomu banlieue dootul gën di sànni xeer wala ngay toj wala ngay toji biis wala ngay nekk nerf bu heure jàng jotee seen doom yi dañuy dem jàng ci école yi gën a baax bu ñu jàngatee ci école yi gën a baax ëllëg ñu war a ñëwaat nootaat suñuy jarbaat ak suñuy doom kon loolu ñun doom baa nii ñoo war a bañ loolu ñoo ko war a kaas ñoo ko war a xeex ba mu jige fi ba képp ku fi ñëw ku mën a yor réew ku fi mënti ñëw soo ñëwee di nga respecté doomu baa yi te xam ne dañoo am cër ci réew mi ñi tax ma wax président Macky Sall am problème te dañoo nekk président Macky Sall tey nga war a ñëw dëkk ci gox président Macky Sall jox la poste mais moom mooy créer emploi yow bi mu jox poste boobu wala mu jox la marché parce que daf la ko jox pour nga créer ay emploi te ku ci nekk sa gox bu fekkee créer nga fa emploi bu bi dina jeex ci réew mais da ngay ñëw ñoom li ñu koy mooy seen yëfu bopp alalu bopp lañ koy jàppee lay séddale ay ñeenti ndaw ay dix mille ay cent mille ay cinq cent mille nga jàpp ni ñoom gaa ngi dimbal te dimbal yoo ko da koy lool nit boo fekkee fi mu toog da ngay jéem fexe essayé ko nga xam li mu mën nga ko ci loolu soo amul moyen jàppale ko sax mais nga recevoir ko toog di waxtaan ak moom di échanger ak moom loolu dina am lu bëri lu mu wàññi ci moom dina am lu bëri loo dina ko dégager ci moom loolu ci li tax moment bi ñuy xeex ci baax jóg. ay laaj réveillé bu yéen a ko dégg comme ni ko Ibrahima Diop waxee bu leen nangoo di xeex bu leen nangoo di sànni xeer bu leen nangoo doon ay nervi comme ni mu leen ko waxee nii bàyyiwaale leen xel seen bopp bu baax a baax Ibrahima kontaan nañ bu baax na ci li ñu daal leen vraiment. mais ba tey ñu gis Ibrahima Diop nga nekk l'homme social comme ni ma ba ci insisté parce que nag fii ku def lu baax ñu wax ko ah ñëwuñu tëbuñu tëb rek bëri dañoo seet si ko dañoo dégg yu baaxam gis yu baaxam korité bii moo ci mujj mu rey ay nag joxe ko joxe ay pomme de terre joxe lu baax rek li nit di soxla ci këram rek mu ko jox ko doomu aadama yi kon yëg-yëg bi nga am ci doomu aadama yi ba ci def yàlla na ko yàlla fay.